préparation ça se passe très bien actuellement euh, depuis bi ñu commencé ba léegi ñu ngi def euh, coach coach focus euh, si suñu physique nous ngi koy liggéey ak coach Bouna instant yi par rapport au basket commencé nañ def ay coach commencé à introduire une attaque. yi nee nañ peut-être à partir de la semaine prochaine bu ñu duggee regroupement la ñuy commencé liggéey si défense bi so instant a am rigueur, rigueur y a l'énergie you know une énergie positive so yeah

lan mooy sa ambition personnelle. Euh, man sama ambition personnelle c'est juste de gagner l'Afrobasket man lol, moi, mos a nekk basket, je ma joué yëpp damay dem ak objectif yu know, parce que gagner afro-basket. donc loolu mooy loolu def naa loolu mooy sama ambition personnelle te loolu mooy ambition euh, jouer, yëpp ci équipe bi même les coachs so surtout que like mosuma ko jël so vraiment am envie ñu gagner ko. inshallah allah am nañ ci yaakaar ne cette année ça mën na nekk la bonne inshallah cette année ñu liggéey def lu ñu war a def suivre instruction coach bi xam nga boole ci ngëm indi mentalité forte mentalité esprit gagnant je pense que xam nga jouer en équipe ku nekk li nga mën dëgg en tant que joueuse nga indi ko apporter ko si équipe bi je pense que on aura une chance. mooy clé bi like on joue en équipe ku nekk li nga mën liñ la jëlee pour nga def ko bu ñu ñëwee yeggee ba Afrobasket ku nekk wane li nga mën ñu jouer en équipe booloo doon benn parce que équipe bu nekkee benn rek mën am chance day augmenter. Euh, li monsieur si jot a dund loolu dama koy dëggal parce que la preuve Afrobasket 2019 bi ñu may joué euh, fii à Dakar ful bu ñu am musul am si Sénégal loolu musuñu ko gis you know si si si en terme de basket ñu dem arena ak ñu ñoo xamante ne sax dañu doon dute ne dina fees wala du fees far yàlla ñu ñëw ñu nekkoon ci biti sax moo ëpp ñu nekk ci biir so mu nekkoon expérience bu extraordinaire so xam nga de passage ñu ci remercier sénégalais yi nga xamante ne taxawoon nañ durant afrobasket boobu so di leen ñaan aussi ren nekkul Sénégal but you know at same intensité bi same level of you know encouragement yi ñu ñaanal ñu encouragé ñu aussi you know guidé ñu xam nga ci afro basket bi jàppale ñu ñaanal ñu ñu mëna am ndam. favori la. Sénégal ah pour le moment xawma ndax instant yi favori na parce que xam nga afro basket bi passé on a terminé 4e donc je pense pas que instant yi bokku nañ ci favori ba ba tey bokk nañ ci top team yi parce que buñ né Sénégal ngay tassé mom ñëpp dinañ waajal seen bop parce que xam nañ Sénégal ak nu mu mënti démé you know dina ko jéem ñafé ba 3e wala quart de finale so ça, je pense que favori, c'est plus le Nigeria, le Mali, you know. Instant, quand moi j'ai en troisième place, Cameroun, maybe. So, après Sénégal. La mission, toujours là. La mission, elle reste la même. On part, you know, avec esprit gagnant, comme nous m'en essayer de gagner la Coupe.